taxaw ci fan fenêtre ana mënuma génn mënuma dem fen ana tout le temps maa ngi si nekk ana je sors pas naana tumb ba mandi ana du ma nelaw sax guddi ana s'il te plaît génnal nga wax nga xamal nit ñi li ma wax dëgg la parce que je sais que xam nga ne li ma wax dëgg la tu connais ton mari génnal nga wax ngir yàlla dama la ko ñaan génnal nga wax dama sonn justice Sénégal bu fekkee ne du ma sénégalais ngeen wax ma bu fekkee ne du ma sénégalais ngeen wax ma ma dem xooli feneen fekkee mën naa am justice ngeen wax ma ma dem xooli feneen xar bi yàgg na dama sonn un an ma toog di xaar et que du tax ma bàyyi du tax ma génn ci ci tànk yi ma taxaw dara tax ma jóge fa force lay am justice Ousmane bordel lu tax doomu wuyu si. Ousmane sonk mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat boobu man ak yow la. yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan bi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan li nekk di ante seen passé yi nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ dee seen 14 doom ci lañ dee ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ dee seen doom yi mën a reposer en paix yàlla leen yàlla xare àjjana Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi. nga ne kenn du la tëj sa on verra bu fekkee yow yaay président de la république bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dicté justice Sénégal sa on le kenn du la tëj ba ba ba da dem suite ba te violé def lu la ne Ousmane Sonko mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat boobu man ak yow la yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa ngay yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan bi li nekk di ante seen passé yi nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ dee seen 14 doom ci lañ dee ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ dee seen doom yi mën a reposer en paix yàlla leen yàlla xare aljanna Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi nga ne kenn du la tëj ça on bu fekkee yow yaay président de la république bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dictateur justice Sénégal ça on le verra kenn du la tëj ba ba ba dangay dem suite ba te violé def lu leen neex juutal ay xale yu ndaw tëddee leen def lu leen neex ne kenn du la tëj on verra Ousmane Sonko bu fekkee ne duñ la tëj on verra.